waaw ah, mais jël war naa am fii de. jël war naa mën a am fii de. ah. loolu daan. ah dañ koy nax. ah mais jàpp dugub. problème foofu. ah mais daa wane na foofu de. waa Mbër. waaw wax ci vidéo Ousmane Diop bi xanaa gis nga ko. ni mi ngi la laaj de. léegi nag laa koy ñaan. <laughs> na génne kii ci combat bi. suñu daaw a mën na ko génne ci combat bi. xaw ma jaar jaar du benn benn bañ a moo demoon. aja mbër dem. waa mbër. waa looy waajal. xanaa am looy waajal. Ousmane daa aja mbër. waa ñaata kilo lii dafa aja aja waaw. ah. aja. bilaay walaay. Eh. Ousmane Ousmane saa ngi liggéey de saa yi daa mel ne xale la de aja aja mbër yee <laughs> eh. Ousmane am nga problème nag bilaay walaay yaa ngi yëngal sa waay mbër mi big Pato ngay am foofu. ay kii kan la nii. adversaire u. nu mu tuddati Ousmane Diop ah. Ousmane Diop ak. Ousmane bu fekkee Diop ak Albouri rek. ku pare pare ah. naa xam nga laam moo li wax rek. mooy loolu. athlète laa kenn du ko wax da ngay simee amateur bi xool la xew. mbër du ne athlète laa wala man ngaa teel a dégg nga ay waajur. dafa leer ajamba. boo ñëwee Ama Baldé sax ku ci pare ba ñu naan. <laughs> mën naa ne.